li nga xam ne mooy kilifa gi moom dañ ko euh, téye fi nga xamante ni moom mooy division des investigations criminelles euh, ci mbirum euh, affaire trafic de visa yi ngi koy jiñ loolu aussi yow tamit lan nga koy jàngate non d'abord mooy sant kilifa gërëm ko ci taxawaayam yi jiitu xam nga Sénégal léeg-léeg mbir bu amee dañuy fàtte lu weesu man nag du ma fàtte koo xam ne nii maa ngi ci Sénégal di observer gis ay taxawaayam yu muy sacrifier boppam gis naa ko ba tàyyi mu nekk ci front bi te kenn fekk ko ci gis naa ko ba tàyyi mu déplacé wu dem ci dëkk àll ya gën a sori fekk fa ñi nga xam ne ñi ngi bëgg a nangu seen suuf taxawu leen ci loolu dañ ko ci sa euh, saluer sant ko gërëm ko mais nag lépp loo xam ne génn na ci cadre taxaw askan bi dugg ci leneen loo xam ne ni njuumte la dañuy ñaan yàlla mu génne ko ci xat-xat yooyu noonu la waaye nag mbir yi na nekk mbir yoo xam ne na bañ a am kumba am ndey ak kumba amu ndey su fekkee kilifa dafa def nañ ko def li ñu war a def ku def ñeneen ñi nga xam ne tamit ñoom lañ ciy tudd ci ay député yu ni mel ñoom ñu def leen li ñu war a def bu kenn layoo ay malaanu kiiraay ak euh, malaanu muslaay mais nañ dindi malaanu kiiraay yëpp kon bu kilifa ñu woo ñëpp comme niñ tuddee ñeneen ñi loolu rek laa ci ñaan bu mu bañ a am kumba am ndey kumba amul rek a am kumba am ndey kumba amul ndey mais est ce que yaakaaroon ni waroon nañoo bañ a egg xamante ni moom lay prôné surtout si nouveau type de sénégalais est ce que moom waroon na ci moom laay wax njuumte ku ne lay dal mais da baax rek li may bañ mooy nit ki juum na ñu fàtte lépp lu mu mës a def ci jubalam ak loo ci manti wax bu fekkee lii ñu koy tuddal ndax ba léegi leeragul ndax liñ koy tuddal lu am laam lu amagul damay jël nag même bu amoon warul a tax ñu fàttali jiitu woon ndax sacrifié wu na ba tàyyi ñu gis ko ci front bi maag moom mosuñoo gisee xamee wuñu lu dul ma gis ko ci ecran yi combat yi nga xam ne ci laay gën a affiché wu ci mbirum góor ji franc-maçon xëy na duñ ci nekk mais nag am na beneen côté boo xam ne tële naa ci man ci wàllu askan wi ci taxawu leen ma gis ne mi ngi ci woon loolu noonu lépp bu ko kenn fàtte njuumte nag mën naa am mais nag nit ki du juum ñu jël mbooleem lu mos a def ci lu baax ñu sànni ko am na loo xam ne doon na ko defal askan wi loolu dañ koy fàttali bu baax di ko ci saluer su amee njuumte loo xam ne ni juum na ko mu jural koy xat-xat ñu ñaan yàlla mu génne ko ci. waaw sortie bi mu defoon euh, di delloo di euh, nga xam mooy tuuma yi ñu teg ci ay fan beneen vidéo génn leeral mbir mi loolu aussi naka nga ko jàngatee. loolu moom la sénégalais gis ne warutoon a am lu ci mën ci am rek mënoon na am wax li nga xam ne mooy li am waaye gannaaw vidéo yi moom génn na te yoon jot na ci li ci des ah nañu dégloo rek xam lan la ca yoon di tëral waaye daal fi mu toll mooy ñu bañ a fàtte lu ñu defoon ci lu weesu ngir njuumteel tey li nga xam ne ni ñu ngi koy ñu ngi koy tudd ndax lu mel noon léeg-léeg Sénégal muy man man na ma dal mën na dal keneen ku dul man mën nga xëy fakkasal def dara lépp loo mosoon a sonn ngir askan wi ngir taxawu leen ñu jël ko sànni ci àll ba te loolu say noon ñoom ñoo ciy profité mais ñi nga xam ne nekk ñuy noonam mais dañoo bokk ak moom réew mi gis na mi ngi bokk ci yenn combat yoo xam ne ñu noobul la mais duñu ànd ak kenn ci lu dul dëgg mais nag bu demee ba nga xam ne njuumte taxaw na ci côté am dañuy nangu ne njuumte la waaye nag duñ ci sukkandiku ba mbooleem lu ma a def ñu sànni ko wane ne ku bon la ku di la déedéet man loolu moom du ma mos ma ci mos a ànd alaa kulli xaal